àdduna mbokki Sénégal euh, man la Khadim Mbaye président association Lago d'Ouest fii ci euh, département bu Mbacké euh, Darou Salaam fii ci Darou Salaam may am mbégte di organiser bis journée sociale boo xamante ne bi dañ koy amal at mu jot te yii nag ñu koy defee fii ci centre Verdi bu Mbacké waaye nag di ci dimbalante ci suñu biir ñun une personne à situation de handicap fii ci département bu Mbacké euh, bis bi nag euh, yàlla dogal na euh, liñ ci bëggoon am nañ ko ndaxte ndimbalante leen woote woon dimbali nañ suñuy mbokki handicapé ñii dimbali nañ leen ci ay bekke ñii dimbali nañ leen ci pusuuf ñii ñu dimbali leen ci suñu alal yoo xamante ne bi dimbalante moo ko taxoon jóg bi ci toftale it muy sant bu baax a baax chef religieux yi nga xamante ne bii teew nañ tey ci jataay bi ñëpp ànd ak ñun bis bi ñoo ngi leen ci sant bu baax a baax baax euh, di sant it euh, ñi nga xamante ni ñooy autorité dëkk bi te nga euh, lu baax rek ñor leen ñoom it wax di yàlla ànd nañoo ñun bis bi ñu leen ci sant bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla nañ ko yàgg teewe jafe-jafe handicapé nag bëri na ndaxte manque de accès boo xamante ni bii pour dem waay bu dee ci dem waay day metti ndaxte handicapé yi bu ñu waroon tey dem Touba bi bu ñu jëlul taxi benn oto Mbacke Touba du nangoo taxaw ah, jël handicapé bi ngir yeex yeexaay bi nga xamante ne bi moom la handicapé bi yeex moom la du mën a tolloor ne loolu nag problème mu transport moom handicapé daf ko am ci senegal problème transport handicapé daf ko am bi ci topp mooy wàllu xëy handicapé yi am na problème mu xëy ñi nga gis ñi nekk ci mbedd yi di tàllal loxo gënalu leen mais nag euh, amuñu pexe pexe bi ñu am mooy tàllal loxo loolu nag ñu ngi lancé appel ci gouvernement bu Sénégal mu gën ci dugal loxoom te xam ne handicapé yi dañ leen war a boole ci société Sénégal ndaxte boroomi xel ñoo ci nekk boroomi euh, ñi nga xamante ne bii kenn ku ci nekk boo ko boo boo fëggee tey jii yaa ngi boppam ma nga la ca nekk ci euh, activité kenn xamul lu mu toll loolu nag. Euh, ñu ngi lancé appel ñëpp rek képp koo xamante ne bii yaa ngi dégg suñu message bi ta nga mën ci jàpp nga dimbali handicapé yi ñu am ci luñu jàpp ndaxte soxla nañ